sëñ Mamel yi kon ñaar ñu benn ñoo mën a ànd mu daal di ko jël daal di ko yëkkati mu ne ñu fee xool ko ko sëñ bi rëy mu ne ko gars yi xoolal ma man kii ñeme moo ko mu daal di ko yëkkati daal di ko ko tegal ci kawam mu jox ko weer ak ay yoon mu naatu naatu naatu daal di baax mu jox ko weer càmmooy mu bañ mu ne si kay mu ngay jàngalee maatu ndax xam na ne bu ko nampalee am na ci kër mu ne naa bàyyi li muy daal di ko taf ci boppam teg ko ci mbaam mi daal di jàppal dàq dàq mbaam mi mu dàq dàq mu bañ mu daal di wax ne ko lii nga war a def ba ñuy ñëw yàlla lay yéex boo dem gawar yi ñëw njëkkaw ji màgg xale yi nga xam ne seen mbay yi dañuy fay dañuy buñaa nga daal ñu daal di leen man ma ñëw te ci seen lii nii nga mën a defati la yaa jël sa nga booy jëkk ak booy mujj daal ko farale gannaaw te kanam la war a faree daan na jël mbaam mi teg ko ci mi départ di di daw di daw di daw ba ñu gaaw ñi nga ne ñoo leen njëkkoon ne ah kéem taan animation yeneen mbaam mi nga xam ne moo gënoon a làpp tey moo gën a suur moo gënoon a yéex tey moo gën a gaaw mi wax ak yéen wax ak ñoom ne leen mën a ñoo xam ndax man maa ngi sagam muy njëkk ak muy mujj man maa ngi mën a ñoo xam di dafay ci kër ga mu duggee ci kër gi yàlla daal di naatal kër gi julli fajar moom daal di suur lool seen wéy yi di jox ñu am soow ñu xam ne barke wàcc na ci kër gi yonent sallallahu alayhi wa sallam di wàcc ñu nekkal moom bi nga xamee ne yàlla dafa ci moom leeral du ko wasu li nit di màgg ci fan moom loolu lay màgg ci weer li nit di màgg ci weer moom li nit di màgg ci fan li nit màgg ci weer moom lay màgg ci fan li nit di màgg ci ci ci jeex moom ci weer la koy màgg màgg bi di gaaw lool bi nga xamee ne nag loolu xew na mu daal di màtt bés jot mu ànd ak sàmm yi te dafay sàmmi ñun bi ngay ba ci xàll bi yàlla xebal Jibril Israafil Asraayil Mikaayil daal di wàcc ci gaawam daal di ko daane daal di ko opéré ñoom àndoon daal di daw jibi ca kër ga ñu daal di ko opéré lépp luy cëram caaxaan ci moom lépp luy cëram doomu aadama di réer jëm sa bopp ndëngal fu mën a doon ñu daal di opéré génn ko ci moom daal di ci sol leer sol ci baax sol ci gëm mu daal di nag xale yi daal dem ne ko alimatu mu ne naan ak Mouhamad ñu ne ko Mouhamadee till yi jàpp nañ ko ñu ne ne waaw daal di defar dugg ci àll bi di daw di daw di daw di daw balaa muy ñëw fekk na ñoom feebar ci moom bàyyi ñu ñëw muy daagu daagu lu jekk la ndax bi ñu cëpp seen kanam rek taxaw. ndax kat yàlla wàcc na ci moom jàmbaar ak yonent sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf du du tiit du raf du dal mu ñëw daal di ko taf ne ko Muhammad lu xew mu ne ko dara ne ko lu xew mu ne ko mu daal di ànd ak ci kër ga bi ñu demee nag opération bi fàq ko muy nelaw nelaw yu métti mu ngi ci daal dama jàpp ne jinne moo ko jàpp fekk ndànkal bi jeexoon na ba mu dellu ci Aminatu seeti moom njëriñ loo xam ne balaa fekkee dafa ñëw gis nga njëriñ loolu mu ne ko bàyyi naa la mutali ni dekal mom do ak dir mutali dal gëna lu ba ñu baye ko baye ñu ci loolu ba ñu xuloo ci ba jàppante bés jot ñu ne lii war nañ ci waxtaan sàngam moo teg xeer bi waaye dañoo xam ne ñëpp ñoo teg xeer bi wala xiraan bu rafet boobu bu fekkoon ne bëgg naa moom ci moom ak bëgg ji dafay taxaw ne bisimilah yi ma teg ko waaye dafa tànn ci jiw yëpp ñu daal di ko teg ku muy yéen bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne loolu xew na bi yàlla namee ci moom def ko ab yonantu jox ko jikko yu baax lépp lu ñu nawee jikko baax mu nekk ci moom waaw maa ko góor ko ci lépp ñëw fonk ko lool def ko fu kawe bi nga xamee ne yàlla dund na ba nga xam ne war na takk soxna ay bokkam ñëw ci moom ne ko Muhammad am soxna jot na mu ne leen lu may def ñu ba xanaa comme ni sama morom yi def rek dem liggéey yi am dara ñu ne takkal la soxna demal ci xarit bi nga xam ne dafay ràññoo doomi aadama yi ñuy dem ci liggéey yi bu ñëwee fay mu fay leen ñu takk soxna yow saa saa daal d'accord ci loolu dama ànd ak dem ci àll ba suuf ci dem ci xarit bi nga ko. loolu mbokk yi ñu ma yëngal ngir naa ñëw ci nga daan ñëw bagage ba dem jaayi ndax dañ maa bëgg a takkal soxna fekk moom xarit yi gënoon na ak gént gént jant bi daan na ci ay lupp ba ni muy ànd moom mu dem ci benn nekk di ko ko mu ne bu ne li nga génn lu wér la yéen bi yàlla yëngu fi yóbbu ci kaw suuf yaay doon soxnaam ah mu daal di tëye wax jooju bi bi mu si fànn yooyu yële ci laajal sa mu daal di ko ràññee wane ko ki nga xam ne moom moo koy topp ne ko lépp loo gis ci moom ci xaar baax bindal ma ko ngay jël ma ko mu xam rek moom di dox buy ci kekk bi kekk bi dafay nooy doon béy buy ci béy bi béy bi dafay doon kekk mu daal di bind loolu mu gis ne bu doxee ak niir di ko keral mu daal di bind loolu mu dem ba ci ñu boole dawaat yi dem bi mu ñëwee fekk garab gi seen lool moom borom kersa la woon mu ci kat naaj bi garab gi daal lay joxe daal di ñëw ba kii ko keral mu bindaloo mu gis ne bi ñu demee ba àgg ci bopp jëloo ma jël lépp lu muy jaay am jaay ma jaay ma jaay ma mos noppalu benn yoon dañ koy jënd ba mu jeex ndekete boobu yàlla ko yebal malaaka yi ñu jënd marchandise yi sur l'instant rek mu daal di jeexal bi mu amee weer ak ñaar fukki fan mu daal di si daal di lim jaay delloo si bagas ka dari kuantalon ya, gitu. di kontaan lool daal di bég ci moom mu daal di dem ci bi ñu ne ko ah nit si nga mu ne waaye ci na ana fay ko mu ne ko mu ne leen mudah ko def mu ne ko demal ci xarit gi ne ko nañ la fay ndax dañ laa ko takkal soxna mu daal di ñëw bu jàkkaarloo xarit gi so kese jàpp ko mu dëppaat yoon ñaaral mu ñëw jàkkaarloo moom dëpp yoon ñetteel bi mu ñëw bay dëpp xarit gi ne ko Mouhamad kaay ñëw mu ne ko lu ni leen li ma xam ci yow nag moo ko jox te takkal ma soxna mu ne ko ah ku mu sa gis benn yoon commerce benn yoon ñëw ñu war a takk soxna ah loolu moom ku mu sa gis dafa waaye bu fekkee ne d'accord am na màkkatam geneen bi ne moo xam ne su bëggee mën naa la ko takkal te lépp moom moo koy mu ne wax ay bokkam ñu ne ko ah xarit ko dafa ñuy fondoo xaaral ju bëri ji jaay Mouhamad mi nga xam ne xale bu ndaw la mu ne màkkatam président bi attaque yi di ko dana ko yow dañuy photo Mouhamad mi jël naa ko taw dara dara sam ngeen fay ko xaalis bi ne ko fi yaroon nañ wax mu ne damay wax loolu de soo bopp rek moo taxoon te ñoom ay sàgg lañ ci ma ñu ne loolu d'accord na ci bu fekkee ne yow la tey jawam ñu d'accord nañ ci bu ibn Abdullah nga ne la ko ma nga loolu du mu de ah mu daal di def pexem jigéen moom waxee mu tër mu def pexem jigéen ko bàyyi nga ma laa bëgg a décorer maa bëgg a oo samay jëwee lu tëggal la wéyal la feccal la ma solal la yaa ko may Muhammad ibn Abdullah mu ne mukk loolu man ta nekk xëy nga daal di jàpp ci loxo bi ne ko bàyyi sóoraal ma yaa bind nii bind maa ngi nii yaa ko signé signature baa ngi nii bul fexe mukk ba ma wax maa kañ sama bay dafa dof d'accord rek mu jeex na quoi d'accord naa pexe yooyu la def bu fekkoon ne kii jamono ji la sëy bi dañuy wax ne wérul waaye jamono yooyu dafa ko sàngara xaraama ko jamono yi sàngara dana xaraam ci lislaam ku képp doon pexe yooyu ba takk sëy xamal na sëy ba wérul waaye ci jamono ji moom sàngara xaraamu ba nga xamante ne loolu na yéen bi sax ay gëm na ko lépp lu xamante ni yàlla jox na ko ci xalaal tey ci tey suur ko jox naa la ko mu moom ko yéen bi sax def na ko déedéet li ma soxla mooy foo yónnee sama borom bu sëg ndox ak bu sëg tàndama boo xam ne wax naa yónnee sama borom lii laa soxla ci xalaal bi leneen lu dul noonu rek delloo naa la ko mu nekk ci loolu ba bés jot bi nga xamee yàlla dal moom te ñun bu wate mu daal di dem ca xaara Hira di di wetal borom Jibril daal di ko feeñoo wàcc ci suuf ne ko Muhammad ba mu ñëwaatee ne ko Mouhamad iqra mu ne ko lu may jàng mu ne ko iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram alladi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam basaan daal di jeex mu daal di topp ca loolu bi mu ñëwee daal di ko nettali Xadijatu mu daal di sant yàlla ci loolu yéen su salaat sama yaram bi daal di dis lool alxuraan wàcc ci moom mi gis yoon mu ne ko sëñ bi sàngal ko ci la ay bu wàcc yaa ayyuhal mudassir fa ansir wa rabbaka fakabbir wa siyaamaka fatahhir bi nga xamee ne loolu xew na mu daal di nekk ci loolu di wéetal boromam di wéetal boromam bés jot mu yàlla daal di ko digal digal mu woote commencé di woote nag yàlla ma yónni yàlla ma yónni waa màkk di ko dégg loolu xam rek ci lu métti def nañ ko ko lépp loo xamante ni bii teg doomu aadama ci lu métti te léegi bu yonent bi sallallahu alayhi a métti ci lañ ko def fekk nañ ko ci kaaba bi mu sujjoon dara fiel no momento. जी सर खुदा के Moussa ak yàlla weer mu jooy ba si bi mu ne parce que dañuy ñaan si kii wax bi ñax la ñuy a alors wax ma fu mu nekk ko wax mu nekk du ma ko mu ne ko yaa ngi dina mu la bés boo xàggee ba soog a waxal xamal ne teg xamal ne teg ay rek mu ne ko waxul xam ma nekk mu ne mu nga daan am xam fekk saa rek foofu di jàng ci yoon sallallahu alayhi wa sallam sehingga kami punya menyukar di selama ini dan seberat dan setahun jadi tu punya lah itu kamar punya mula tahu punya itu dah dah dulu deh tu kecil Islam ini jasa kelapa ni tahu ni bimbingan kami tu mana berat biñ toogee waxtu bi jot ñu commencé tëj porte yi tëj bunt yi mu ne waaw lii daal la yow dañuy julli mu ne ah julli seen laa su xanaa ne weer yi dëkk mu ne ah kay xanaa ne ñëw ci ci fenn mu ne ah kay xanaa ne buñ dee su ko xàggee mu ne ah kay xanaa ne buñ dee su ko mu ne ah kay mu ne kon kay baax ko beneen bunt yi nañ dem julli gi sa kaxam la moo tax ma njëkk def loolu moo tax bàyyi leen kenn ku duggee ci lislaam lislaam kenn mën na di jëf ci kanam ba kenn ku génnee àdduna jërëjëf daal bu joxe gannaaw bu daal di jiitu commencé mooy laa ilaaha illallah Muhammadu rasulullah laa ilaaha illallah Muhammadu rasulullah saaba yi topp ci gannaaw moom ak yëpp génn taxaw di yónnu ñu naan ngoo kay am na Omar dugg na ci lislaam Omar dugg na ci lislaam ñëpp génn di ko seetaan mu dem ba ca Kaaba ga Bilaal daal di yéeg ci kaw daal di not kenn la not jëkk génn ci kaw ñu not julli daal di si garab do we did diinam ngeen yokk ñu leen lekk tey leen naan di leen dóor tax na loolu nit maa ngi jàmbat waaye ñëw leen bu fekkee ne loolu ak leen ko daa leen ibal xabasa benn bu ko boo xam ne du tooy te li mën a kuy tooy mooy na yaa siiw mu daal di leen yebal boole leen ak jaafar ak ngeen ngeen di saaba yi Seydina Usmaan ci la bokkoon ak doomam Roqeeta ne leen dem leen bi ngeen demee ca xabasa ca na yaa siiw moom day dimbale way dam baax bi ñëwee dem baax Moussa di ñëw ci moom mu daal di leen dalal la mel lu xew ñu ñu day way dàpp way dàpp lañ dañ ñoo tooñ di ñu xaayee suñu diina di ñu mbugal di ñu méttital di ñoo lax mu ne leen toog leen wax ak comme amin saa dafay yëg ne saa may yëg ne dañ leen xabasa di leen toog que é jàng ba ci mu ne ci Abdoulaye ataani al kitaaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aynamaa kuntu usali bi salaati wa zakaati ma dumtu hayyan mu dal di bég dal di kontaan joo mooy bés fii di tooy mu dal di leen ragal dal di yokk seen i garab yokk seen i tiraanga ne leen fii képp leen di laal fii maa ngi fi dal di leen garanti ñoom ñaar ñi nga xamal la ay loolu lañu woon xeex islam rek moo taxoon ñu juboo

nangu jabari buur yi nangu jabari jàmbur yi ndax yàlla ko may taal